عباد الله يقول المولى تبارك وتعالى لقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وقال وما يذكر إلا أولو الألباب وقال إن في ذلك لآيات لأولي النهى ثم قال هل في ذلك قسم لذي حجر أيها المسلمون ذكر الله في هذه الآيات الكريمة العقل والألباب والنهى والحجر وهي أسماء لمسمى واحد وفي هذه العناية القرآنية إسادة بشأن العقل وبيان لمنزلته السامية ورتبته العالية في إدراك الأمور wal ifaadati min al ayaati wal ibar mbokki jullit ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala di laxatu ci moom ak di dimbali ko di sàkku ci moom njéggal si mbooleem suñuy ñaawteefu jëf ak suñu ay bon bonu ba kenn di seede ne képp koo xam ne moom tabaraka wa taala dimbali na la defal la hidaaya ba nga tegu ci ak njubam amul keneen ku la mën a réeral waaye ku mu bàyyi seetaan la ba nga sànku ci yoonu njubam su boobaa dootoo am ku la gindi di seede amul benn buur ku dul moom moom dong moo yeyoo ñu jaamu te bañ koo bokkaale waaye di seede ne moom moo yónni woon ab tam muhammad yal na yàlla wàccee waami xéewalum ci moom ak i saxaabaam mbokk yi ñu bokk yàlla borom bi tabaraka wa mu ngi ñuy dénk ragal ko ci woy ci ay ndigalam ak moytu ay tereem waaye mu ngi ñuy bàyyiloo xel ana lan mooy nekk suñu ay noo yu mujj bés bu ñuy dellu ci moom ci lan lañuy ñuy faatoo mbokki jullit yi wax yi gën a dëggu te gën a jub mooy li yàlla tabaraka wa taala wax ci téeréem njub it njub gii gën a jub mooy njubug yonentam sallallahu alayhi wa ak ñi nga xam ne ñoom la yaroon ci keppaaram mooy ay saxaabaam yu sell ya te mu roy loo ñëwal leen borom bi tabaraka wa taala mbokk yi bu ñu demee ci alquranu am na ci ay ayaat yu bari yoo xam ne mu ngi ciy wax jëmee ci lu aju jëfandikoo xel waaye ak sàmm ak wottu ko ba dara du ko tilimal waaye dara du ko waaye dara du ko mejjal ngir ñu mën a daj ana lan moo tax yàlla tabaraka wa taala wàcce ñi kaw suuf waaye ngir ñu mën a xam ràññee màggaayu borom ci ay kawteefam ak aayaam yi nga xam ne moom la ñuy junja ngir ñu ciy xalaat borom baa ngi wax ci alquran ne ñun yàlla de ñoo leen di leeralal samay kawteef bu fekkente ne da ngeen xelu yàlla nee na ay aayaam ay miracle am yi nga xam ne moom lay junj jamono ji nekk di ñu puus si ñu siy xalaat ak di si setantal boroom bi nee na loolu kenn du ko daj jàngat yu mucc ayib yooyu kenn mënu see jariñu lu dul ñi nga xamante ne danañu xóotal seenu xalaat mu ngi waxaat ci téere ba tey yàlla nee na doo gis mukk ñi nga xamante ne danañu waaru ak di xóotal seen gëstu si seen kawte fi boroom lu dul ñi nga xam ne ñoom ñooy ulul albaab boroom xel yu rafet yi mu waxaat ci téere bi ne nekk na si jàngale boroom bi yi nga xam ne mu ngi dëkk di leen ko jàngal ci téereem bi ñeel ñi nga xamante ne ñooy way xalaat yi muy wax ci suuratul fajr borom bi na dëgg-dëgg yooyu ngante moom la yàlla ubbee saar wi ci ay waxtu ak ay mbir ak ay dëkk yoo xam ne yu màgg la yàlla nee na yooyu yëpp mooy junja di leen ko bàyyiloo xel ña nga xamante ne ñooy daj jàngat ba sew-sew ba nekk ci biir loola mooy ñi nga xamante ne dañuy xalaat ay boroom xel la mbokki jullit yi ci aay yooyu yëpp li ñuy seetlu mooy yàlla tabaraka wa mu ngi fay tudd ay baat yoo xamante ne ay turam wuute na waaye am pireem la yooyu yëpp di junjo lenn na dong moom mooy xelu doomu aadama moom mooy yëg-yëgu doomu aadama loolu su fekkee ne am na lenn lu muy junj mooy alquraanu karim bokk na ci yi nga te moom la yitte wala moom la yitte woo di ci bàyyiloo xel doomu aadama yi moom mooy lu jëm ci wàllu xel ngir ñu sàmm ko ñu wottu ko bu baax ci wàccuwaay bi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala wàcceel ko waaye ab tolluwaayam bu rëy bi nga xamante ne noonu la toll ngir doomu aadama yi ñuy dëkk ak di sax ci loo xamante ne moom mooy sàmm xel moomu ndaxte doomu aadama bés bu fekkente ne am xelam tukki na ci moom dootul mën a dajati yi nga xamante moom la yàlla tabaaraka wa taala di joxe ay junj aki jàngale waaye du jariñu benn yoon ci aayay borom ak yi nga xam ne yàlla nee na na ngeen si def ay taxaw seetlu loolu lépp balaa mu koy mën a jariñoo mooy faaw am xelam nekk ci moom kon ci loolu mbokk moo ñuy xamal ne xel bokk na ci xéewal yi gën a mag yi yàlla tabaraka wa taala defal doomu aadama ngir doomu aadama boobu mu dimbali ko ci xelam moomu ngir xal yoonu njubug boroomam waaye mën a jariñoo ci yi nga xamante ne yàlla def na ko ci àdduna muy ay njariñ ngir moom waaye di ay njariñit ngir lingante mooy diineem waaye ba tey mbokk yi xéewal boobu lu rëy lu màgg la loo xam ne yàlla defal nañu ko ngir ñu koy jëfandikoo boobu la xéewal dañ koo war a jëfandikoo ci loo xamante ne mbokk yi dana ñu jariñ fii ci kaw suuf mooy dund gi nga ñu ngi fiy dund si ay suñuy soxla ak bëgg-bëgg yoo xamante ne moo dund gi ñoom ñoo ànd waaye it ngir mu jariñ ci fee nga xamante ne fa la ñu jëm muy daje bi ñu war a daje ak suñu boroom waaye mbokki jullit tey li ñuy seetlu mooy ñu bari ci ñi nga ne mooy jullit ñi xéewal boobu leen yàlla defal muy xel dañ koy jëfandikoo ci yeneeni anam yoo xamante ne du leen jariñ ñoom ci seen jëmm bi maanaam dañuy sóobu ci ay mbir yoo xamante ne dafay yàq seen xel daf koy muur na mu waroon a deme di fonctionner di xalaat ngir mën a daj ay njariñam fii ci kaw suuf waaye mën a jariñ ci kaawteef yi nga xamante moom la yàlla di ñu andil ngir ñu mën a daj màggaayam yooyu yëpp duñ ko jariñoo waaye it dañ koy jëfandikoo ci loo xamante ne safaan lay nekk doomu aadama yi ni ñu waroon xalaat ci loo xamante ne moo ñuy suqali suñu réew suqali koom-koom yi nga moom lañu am waaye suqali lépp loo xamante ne danañu jariñ waaye suñu xalaat ak ñi ngante mooy yi ñuy fent ci faneen lay jëm ndawi julli ñi tey ñaatu yoon lañuy gis ci kaw suuf ci dund gi ñu dund jamono ji nekk bés bu nekk ci waxtu wu nekk nit ñi di fent ak di génne ay xeeti waxin ak ay xeeti di ngante ne may pecc ak ay caaxaan yoo xamante ne jamono ju nekk waxtu wu nekk ñu ngi beesal lu bees loolu lépp ñu xalaat ko ba jox ko aw tur waaye ñu xalaat ko ba jox naka lañ koy defe bu dee am pecc la ne ñii da lañ koy defe bu dee mbir la yom te ne ñu ñàkk solo si seen dund it ñu ne mbir mi nii leen koy defe ca anam ba waaye jox ko li ngante mooy aw tur ci waxtu waawu yàlla mu ngi leen di oo ngir ñu fàttaliku ngir ñuy xalaat ci li ngante moom la leen defal ci kaw suuf mbokki jullit moo tax xel moomu lislaam dafa yoonal ci moom ngir ñu sàmm ko comme ni mu yoonalee ne julli leen oor leen joxe leen asak islaam dafa yoonal ngir doomu aadama yi sàmm li ngante mooy seen xel moo tax mu jox ko wàccuwaay bu kawe ci diine lislaam boole ko ci ñuy tuddee ad daruriyaatul xams juróomi mbir yi nga xamante ne lislaam dana nañ ko sàmm lislaam dana juróomi mbir moo gën a cher ci dundu doomu aadama fii ak fële juróom yooyu nañ ko sàmm te képp koo xamante ne moo koy yàq it lislaam dana kooku nañ ko dab te li ngante ne mooy loxaam mbokki jullit ci juróom yooyu xel daf ci bokk moo taxit it gis ne loolu du firi lenn lu dul yittewoo bu kawe bu lislaam yittewoo li ngante ne mooy xel moo tax mu bàyyi loo ñu xel ñaari mbir ci ni nga te noonu la koy sàmmi bu njëkk bi mooy lislaam dafa yoonal ñu sàmm li te ne mooy xel ci lépp loo xamante ne moo koy yàq ak lépp loo xamante ne moom mooy jàddaloo xelu doomu aadama xel mi ni mu waroon a xalaat nekk xool moom te bu mucc ayib lépp lu koy yàq lislaam loolu daf koy tere moo tax mu samp ci li nga mooy si dund gi ay mbir yoo xamante daf koo araamal waaye yëj lépp loo xamante ni it moom mooy tilimal xel moom dàq lépp loo xamante ne moom mooy tax xel mi ni mu waroon a xalaat cent pour cent wala cinquante pour cent sax lislaam dana loolu nañ ko dindi boo waroon a xalaat téeméer ñu ne lee juróom fukk l'islam dana déedéet nañu dindi lool ngante moom mooy dox ba juróom fukk yi des mënta egg kon lépp lu koy gàkk rek lislaam dana loolu kat nañ si jog taxaw si mu xaraamal ko waaye dàq ko ngir lan ndaxte xel moom bu wayul du mën yóbbu doomu aadama yi ila tafakkuri fii malakuuti rahman ci kawteef yi nga xamante ne moom la yàlla def ci kaw suuf waaye du mën a dajit njariñ yi nga xam ne yàlla dëxëñal nañu ko si kaw suuf mbokki jullit suñu ñàkk li nga xamante ne mooy xel ak xam-xam bu rëy ana ñaati mbir ci kaw suuf suñu réew mii duñu dem fenn ci loomte ne yàlla def na ko fi waaye suñu ñàkk xootal xalaat ak xam-xam ñeneen ñooy ñëw di jëriñoo loolu liggéey amuñu xam-xam ba amuñu am-am ba waaye amuñu man-man ba ngir jariñoo ko yooyu nag la yàlla doon wax ne defal naa leen ci kaw suuf yoo xamante ne ngir yéen la siiru fil ard yaa leen dox leen ci kaw suuf ngeen fag li nga moom la fi yàlla defal mais ndax ñi nga xamante ne ñoom ay doomu aadama lañ comme ñun yàlla jox leen ay xel kom ñun ñun liñu waroon a jariñoo ñoom ñooy ñëw di ko jariñoo xam-xam bi nga moom la ñu waroon a peek ñoom ñoo koy am ngir ñoo defal ñu loolu lan moo ko waral ndaxte dañoo xóotale suñu xam-xam ngir daj yi nga moom la yàlla dëxëñ ci li nga xam te mooy suufam moo tax borom bi tabaaraka wa taala bokk ne li mu doon junj ci alquran ne afala yanzuruuna ila al ibili kayfa xuliqat ngir doomu aadama yi xóota seen xalaat yaa ne na am na loom te yéen ngi dund ak moom ngeen jox ko li nga xam mooy solo bu tuuti muy li nga xam mooy gëleem mais yàlla nee na dox leen ci biir xalaat leen ci ay kawteef yu bare mu ngi ci waaye xool leen ci asamaan ngeen yéemu ci ki ngante mooy seen boroom waaye dox leen ci kaw suuf ngeen xalaat def ay taxaw sellu ci naka la ko boroom bi tabaraka wa taala tërale kan mooy ki ngante moo ko tëral waaye li ci war lépp ci dellu ci boroom bi ak daj ak màggaayam yu mën koo daj kon noonu mbokki jullit la yàlla ba léegi ne afala yanzuruuna aw lam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma xalaqa allahu min shay yàlla ne ndax yéen doo leen xool ndax doo leen xalaat ci yi nga xamante yàlla def na leen lépp ci kaw suuf ak ay mbir yoo xamante ne yàlla moom moo leen bind te mu nekk seen biir ndax doo leen ci xalaat ngir ngeen daj waaye mën a jariñoo ci loolu kon mbokki jullit yi loolu mooy wane ne lislaam dafa yëj dax lépp lomte mooy yàq xel moom comme ni mu dàqee it doomu aadama ba ñu jëfandikoo xalam di roy rek roy boo xamante ne roy bu baaxul la at taqlidu ama di roy loo xamante ne maa anzala allahu biha min sultaan yàlla wàcceew ci li nga xamante ne mooy wennu lay nit ñi dañu koy def rek walla moo xew fii ci li nga mooy ci pénc mooy suñu aada jii moo xalaat jii moo xool ndax loolu manees na koo xelu waa wala déet waaye ñu ngi koy def rek dama koy def loolu lislaam daf koy tere bal dafa bëgg doomu aadama yi di jëfandikoo seen xel waaye ñoom ñiy gindee ko ci li ngante mooy seen xalaat yaqulu mawla tabaraka wa taala yàlla mu ngi wax ci téeram bi ci loolu ñu doon moytuloo noonu di roy roy goo xamante ne doo jëfandikoo sa xel yàlla ne lool yëjjoon naa ci démb ñi nga xamante ne ay yéefar la ñu woon yàlla mu ngi doon yëjj xeet yi ngante ñoo fi woon di wax na ñoom da wa isa qiila lahum ittabiu ma anzala qaalu bal nattabiu ma alfayna alayhi abauna buñ leen daan wax mooy yéen ndax doo leen topp li nga xamante ne yàlla tabaraka wa taala moom la wàcceel xanaa doo leen xalaat ci diin al islaam doo leen xalaat ci alquran gi ñoom seen tontu leen na la doon doon ñun de duñu topp lu dul la ñu fekkoon démb suñuy maam daan ko def borom bi na waaw awalaw kaana abaahu laa yaqilun xanaa ñoom seeni bàyyi nekk ñoo ñu daan ñàkk jëfandikoo seen xel su fekkee nit ñi li ñuy def te tegul ci xel su boobaa doo leen ci topp bés boo leen ci toppee yaa ngi topp di soobu ci li nga xam ne moom la yàlla doon xase démb ñi nga xamante ñoom ñoo fi jiitu woon aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafurur alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsaani wa askuruhu ala tawfiqihi wa imtinaani wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin ibadallah wa thaniyan tahrimu ma yufsidu al-aql hissiyan wa ma'nawiyan mbokki jullit yi ñu ngi santaat borom bi tabaraka wa taala julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa di seede ne moom moo yey ñu jaamu ko te moo yónnoon ab yonentam mbokki jullit yi ñaareel mbir bi nga xam ne lislaam daf ko yoonal bu njëkk mooy sàmm li nga xamante ne mooy xel mi ci lépp lu koy yàq ñaareel bi mooy lislaam dafa xaraamal lépp loo xamante ne moom mooy yàq xel moo xam loolu xissiyan physique la wali ngante ne maanawiyan muy moralement lépp loo xamante ne na yàq xelu doomu aadama wala loo xamante ne buy ci xalaat la koy yàqale war a daj li ngante ne mooy kawteefi mën a gindeeku ngir tegu ci li ngante mooy njub loolu it lislaam daf koy xaraamal moo tax mbokki jullit yi sariyatul islaamiya si la xaraamale bépp mbir boo xamante ne dafay yàq lingante mooy xelu doomu aadama moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ngi wax ci alquran di wax ne ya ayuha allazina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali saytaan fajtanibuhu laallakum tuflixuun borom bi tabaaraka wa taala nee na li ngante moom mooy sàngara ak li ngante moom mooy carte ak sampayee xeetu bokkaale yi borom bi nee na yii sobe lañu waaye dafa bokk ci jëfi seytaane moytu leen ko mbokki jullit aayaat boobu tegtal ci ne doomu aadama bépp mbir boo xamante ne dafay tilimal xelam daf koy muur waaye daf koy yàq mbir moomu dafa xaram ci loolu mbokki jullit moo ta jaadu si ab jullit muy jëfandikoo mbir moo xamante ne dafay yàq xelam ci sàngara ci alcool ci drop ak mbooleem xeetu mbir boo xam ne dafay muur xelu doomu aadama yàq ko ba dootul jëfandikoo li nga mooy xelam te loolu nag lii muy tegtale rek mooy islaam andi na aw lay bu biir ci yoonal doomu aadama la nga xamante ne moo koy sàmmal xelam moom ba nga xamante du tukki wala du tàbbi ci lenn lomte moo ko koy tukkil beneen bi mooy war na fexe it wala lislaam xaramal na lépp loo xamante ne mooy yàq xelu doomu aadama ci wàllu moral ci loolu nag moo tax day tere doomu aadama muy cuubu ak di jéema roy ñoo xamante ne seeni xalaat dafa juyoo ak li ngante mooy xalaatu diine seeni jubluwaay du li ngante ne mooy jubluwaayu lislaam te yooyu tey mooy yi gën a menacé ndaw li ngante mooy lislaam yi ci ay courant yoo xamante ne ñu ngi koy gis ci kaw suuf ak ay idéologie yoo xamante ne tey ñu ngi koy jàngal suñuy doom loolu nag di leen yàq jëme leen ci foo xamante ne wuute na fa leen seen diine lislaam xalaat loo woon ko moo tax ndawi jullit ñi ngante ñu ngi toll ci lingante mooy sàkku xam-xam wala ñi ngante ne yàlla sédd na leen ñu toll ci jànguwaay yi ngante ñoom ñoo gën a kawe nañu moytu di moytu bu baax ña nga xamante ne ñoom lañuy ñuy jëflanteel ndaxte li ngante ne moo fës xeet yooyu ngante ñoom ñooy menace agression culturelle yooyu dañuy tànn ñi ngante ñoo gën a ñaw ñu yaakaar leen ëllëg ci am njàng yaakaar leen ëllëg ci place ngante ñoo gën a ci kawe ci réew mi ñu fexe ba ñooñu ñu jël leen bu ñu leen jëleen rek di leen xalaatloo ak di leen gëmloo ay mbir yoo xamante ne sori na lool ak li leen seen lislaam sante woon ci loolu mbokki jullit ba tey bépp mbir boo xamante ne dañ ko jox li ngante mooy turu lislaam te loolu sori lool ak li ngante mooy jàngale lislaam di la jubadi ci njubug li ngante mooy sa borom mbir moomu it nit ki daf ko war a moytu jullit bi warul roy ci ginnaaw ay xalaat yoo xamante ne ay xalaat yu juuyoo ak jàngale gi yonente bi sallallahu alayhi wa beneen bi mbokki jullit yi bu ñu bëggee xam dëgg-dëgg màggaayug li ngante ne mooy xel xéewal boobu ngante moom lañu yàlla jox mbokki jullit nañu xool gestu moo xam ci kër yi la wala ci mbedd yi ñi nga xamante ne yàlla def na ñu ñàkk ngante mooy xel moom nañu xool rek koo xamante ne yàlla tukki na ci li ngante mooy jëmmaam am xel xalaatul ñii peeg nañu ci alal lu bari waaye tey seen xel nekkatu fi ñenn ñi ñu ngi nekkoon ci digg li nga xamante mooy àdduna war a fàgg ngir defar seen ëllëg waaye yàlla def na leen tey seen xel yi nekkatu si ñoom ñu tàggoo li nga xamante mooy seen sago boo leen gisee ñuy dem nga xool sa bopp xool leen da nga daj li nga xamante ne mooy sa xéwlu boroom waaye beneen bi moo ko jullit nañu dem ci li mooy hôpital yi ak bëre ngante mooy fajukaay yi ñu gis ña ñoom ñoo fa tëdd ba nes ñoo xamante ne seen xel tukki gi mu tukki ci ñoom moo leen fa tëral waaye bari na si ñoo xamante ni mbokk yi boo leen gisee dem ak nga gis leen tey sa li mooy rangoñ dana tuuru kon mbokki jullit yi loolu rek doy na sëkk ngir doomu aadama daj màggaay li ngante ne mooy xel waaye doy na sëkk ngir doomu aadama daj xéewal boobu ni mu màggi bu bañ koo li ngante mooy sàggane moo lislaam bi ngante ne moom la ñu gëm bépp crime boo xamante ne nit def na ko ba mu tukki li ngante mooy xel doomu aadama même bu ko tayulee loolu yu addi ila diya dafay joxe li ngante mooy ndàmpaay kom diye bonte moom lañuy joxe ci ki ngante moom mooy rotal bakken ki rey lii ngante moom lañuy ñuy te nit kii nga xam moo def kirimit boo xamante ne tukkil na xelu doomu aadama ba mën a jëfandikoo mën a du koo jëfandikoo takaalif yi nga xam te moom la tegoon mën du koo jëfe kooku mbokki jullit yi lislaam dafay teg ci moom ndàmpaay lool loolu in dalla ala shay bu rekkee am na lu muy tegtale rek mooy ne lislaam jox na wàccuwaay bu rëy li nga xam ne moom mooy xel kon moo tax mbokki jullit yi ñu ngi dénk li nga xam mooy suñu bopp dénk li nga xam ne mooy ndaw ñi ak mboolem li nga xam mooy jullit ci sàmm li nga xamante ne mooy jubluwaay boobu maqsad boobu nga xamante moom lislaam boole si juróomi mbir yi mu gën a jox yitt ngir ñu sàmm ko nañ ko sàmm ngir mu baaxal li nga xamante mooy suñu dund waaye baaxal li nga mooy suñu àllaaxira mbokki jullit yi nañu bari di julli ci yonent saa sallam ci bés bi mel ak li nga mooy guddi bés bi allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أم بالسلام بلادنا السنغال وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وجنبنا الكوارث البحرية والبرية والجوية ومن اضطرابات السياسية وكثرة الاستدامات في الطرق يا رب العالمين إن لا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله